itam boole koo xam ne danañ ko jàppale ci loole ba ni ko bëgg mu defe defe ko noonu man cee daje daj daje ci ngërëmu sëñ Tuubaa ak suñ borom te ñu moom li nga xam ne ñëpp képp koo xam ne itam lislaam moo la tax jóg te li li lii sa taxawaay bépp mooy fas yéen lislaam taxaw ak jaar ni mu war a ñu ngi ñaan suñ borom itam mu jàppale la yow itam jox kàttan ak wér ak tal ba lépp loo xam ne yéene nga koo defal lislaam nga mën koo defee ni nga ko bëgg te jare ca te te daje ci ngërëmu suñ borom te ànd ña nga xam ne ñoom nga ko àndal ginnaaw loolu ñu ngi doon waxtaane ci ajjuma ji wesu xam le ne suñ borom day won na ne lépp loo xam ne mooy xéewal guñ soxla woo ak wala ak ak lu ñu suñ borom defal nañu ko ci kaw suuf si huwa allati ja'ala lakumul arda zalulan mooy kon xam na ne jox nañu xéewal gépp ci kaw suuf waaye nag xéewal googee ngir ñu mën koo jot nu ñu ko war a jote dafa laaj ab taxawaay looloo tax mu wax ne fab suuf yi mën a kibiha mooy dine xéewal du gi nga xam ne moom suñ borom def ci ci kaw suuf bari na lool yaatu na lool waaye nag doo fas say loxo ngir jot ca aw day am ay jéego yooyu dox ngir mën caa jot waaye nag suñu boroom mais wan wan ne ñoo ñi nga xéewal googu dey li muy bari bari nga xam ne dafa wax ne fi mimmaa fil ardi halaalan tayyiban mooy leen nekk suuf lépp day yéen laa ko jox na ngeen ko jëfandikoo ni ngeen bëggee na leen na leen doom loola nag ba mu ko waxee itam dafa am leneen lu mu waxaat loo xam ne kon dafa loo xam ne luy tënk ab jullit la ngir dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum mooy mu xam kon jullit sañu ta faggoo na ko nam ko neexee sa sañu ta sañu ta ci alalam nam ko neexee ndax wala musrifu innahu la yuhibbul musrifin kon suñu cee doxee ni nga xam ne ko neexee sañu ko faggoo itam ni ko ni mu ko neexee waaye dafa am noo xam ne la ko war a faggoo dafa am noo xam ko war a yore ndax loolu mooy tax mu man daje ngërëm borom ni mu ko bëggee kon mu mel ni lislaam day jox na itte lool ngëm yàlla ndax ngëm yàlla tax mu jox ko itte yu rëy ji mu ko jox moom rek moo moo mën nekk ci yow mu dëgër mu doon loo xam ne moo lay conduire di la jaarale fi nga war a jaar di la di la teggale fi nga war a teggi wax bu ngëm yàlla amut maanaam doo yëg mën ngaa bañ a yëg dëgg-dëgg sa sa sa sa sa lislaam ndax ngëm yàlla rek mooy tax nga mën a yëg sa lislaam ba tax boo nekkee ci marché bi xam ne ab jullit la boo nekkee ci mbedd yi itam xam ne ab jullit na koo man di jaxasool itam xam ne yow ab jullit nga ba am na loo sañ ak loo xam ne sañoo ko loola nag moo tax lislaam jox ngëm yàlla nga maanaam jox ko jox ko itte ju rëy waaye nag itte ju rëy yooyu mu jox ngëm yàlla te ngëm yàlla doon loo xam ne ci ab xol lay nekk waaye nag suñ borom nañu ay màndarga yoo xam ne moo nuy won ne lii ku koy doxe ngëm yàlla mënees mi ngi ci yow loola nag bokk na ci li nga xam ne moom la waxoon mooy koo xam ne da ngaa da ngaa da ngaa gëm yàlla gëm yonent bi nga xam ne moom la la yónni ci moom moom la yónni ci ñun boole ca nag ngëm googee amoo ca déng-déngi amoo amoo ca lenn ne da nga ci benn hésité boo xam ne ba da nga ci def waaye da nga ko dëggal ci lépp sa lépp di ko doxee ci sa lépp nee na kooka tey itam lislaam doon la jaral dara na la jaral nga mën caa joxe sa sa sa jëmm na la jaral itam mën caa joxe sa alal kon ñooñu mooy ñi xam ne moom la suñ wax ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi dëggu mooy ñi nga xam ne itam wax seen gëm yàlla ñu woote bu dëggu la ginnaaw loolu mu xamlewaat suñ borom ne ngëm yàlla day bokk na ci màndarga yi koy wone mooy koo xam ne fuñ tuddee suñu borom rek dana am lu mu yëkkati ci yow dana am yëg-yëg boo xam ne da nga ko yëg ci borom da yëg ngir xam ne kàttan nga nga xam ne boroom man-man baa ngoogu xam ne boroom sañ-sañ baa ngoogu nga yëg loolu ci sa ci sa ci sa ci sa sa doxin yëg ko itam ci sa ci sa biir nee na loolu mooy tekki ne kon kooku gëm yàlla la boo déggee aay yi nga xam ne moom la suñ boroom di wàcce itam muy alxuraan ji aaya boo ci dégg dangay ngay jàpp yow mii képp la ko suñ borom yónni ci yow suñ borom wàcce ci yow ngir nga war koo def ni nga xam ne mu ko war a nga defee ndax loola mooy tekki sa ngëm yàlla gëm dëgg doon koo xam ne itam sa borom rek ngay nga doyloo ci lépp yaakaar ko ci lépp kooka mooy ki nga xam ne kon mooy ki gëm yàlla nee na ñooy ñi nga xam ne itam ñi bi di ngëm yàlla nekkee ci ñoom itam xam ne ngëm ngëm jëf jëfi ci biir xol lay nekk dafa mu ñàkk ay mandarga yu ko yoo xam ne moo koy dëggal mandarga yooyee nag benn mu doon loo xam ne yaa ngi koy feeñale ci say cir wala nga feeñale ko ci sa am am allazina yuqimuna sala mooy loo xam ne da nga koy feeñale ci say cir wa mimma razaqnahum yunfiquna mooy li nga xam ne da nga koy feeñale ci sa am-am mooy kon ngëm da nga koy da nga feeñal ci sa ci sa ci say cir nanga koo feeñal itam ci sa ci sa ci sa am nee na nga xam ne lañ mel day bu ëllëgee am nañ pay goo xam ne ci suñu borom suñu borom nag bi nga xamee ne wàcc na ci ñun lislaam le ko naa Muhammad sallallahu sallam dafa am ñaari mbir yoo xam ne jox na ko ite ite ju rëy benn bu njëkk mooy ngëm yàlla gi nga xam ne moom lañu doon wax beneen bi ci teguwaat mooy ndax dañoo xamal li ñu xamal ne ngëm yàlla maanaam li ñu won ne jox na ñaari mbir yi mooy jaamu yàlla yi ñuy def dañoo xamal ne li nga xam ne moom lañ ci war a jël nga xam ne moo ñuy jariñ ci ci ca jaamu yàlla ga mooy dañuy ñu gën a rafet suñu jikko looloo tax ba julli mi nga xam ne moo gën a rëy mag jaamu yàlla yi suñ borom dañuy xamal ne tanha anil fahsai wal munkar koor mi nga xam ne itam moom suñ borom moom wax ne maa ko moom maa koy maa koy fay li muy rëy rëy mu siyaama ko kutiba allasina min qablikum laallakum tattaquuna la wax kon mu mel ni jikko moom doon na loo xam ne lu rëy ci suñu borom ngëm yàlla itam yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam bu ñu bëggee tënkal li ko tax a jóg dafa wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon mu mel ni ngëm yàlla ak jikko doon na ñaari yoo xam ne mooy li mën a jariñ ci àdduna mooy li nga xam ne itam moo mën a jariñ ci àllaaxira li tax nga ngëm yàlla doon loo xam ne moo mën a jariñ ci àdduna ak àllaaxira ndax bu nekkee ci yow mooy doon li nga xam ne mooy machine bi taal ci lépp loo bëgg a dugg da nga ci da nga da nga cay seet suñ borom di ko ci delloo di ko ci di di bàyyi xel suñ borom bu dee jikko itam di tax mu am solo moo di ne borom dañoo bind ñu doon ay xeet yu wuute doon ay jëmm yu wuute ñu wuute ay man joon doon ay ñu wuute ay kattan waaye nag bëgg na kattan yooyee kenn ku ne jàppale ci sa morom man yooyee itam kenn ku ne mën cee jàppale sa te loolu xam nañ ne mu nee mu nee mënoo jëfandikoo mënoo jot ci kàttanuk jàmbur wala nga jot ci man-manuk jàmbur lu dul ne danga ko woon jikko yu ba tax mu mën laa jàppale ci la nga xam ne moom la man Ah, man laa taxaw itam ci li nga xam ne mooy sa itte kon suñu mi nga xam ne mooy boroomu jàpp ne te mooy boroomu man te mooy ki nga xam ne itam moo mën a dimbali doomu aadama yàlla nañu dimbali ba ñaar yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci lislaam muy jikko ak ngëm yàlla ñu gën ko bàyyi xel di ko waxee di ko waxee doon suñ làpp bi nga xam ne moom lañ teg suñ kanam ngir mën a jëfa ngir mën a jëfandikoo li nga xam ne mën a wàcce ci ñun yàlla na suñu borom mi nga xam ne mooy kër borom kàttan tey borom man dimbaleen ñu ci loolu bañ bu nekk ñuy bàyyi xel jikko di bàyyi xel itam ngëm yàlla gi nga xam ne mooy fondement lislaam loolu mooy mënu jëriñ rabbana laa tuzigh quluubana ba idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil imaani an aaminu bi rabbikum fa rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان رب اللهم أقول قولي أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم صلوا على نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم